ñu bëri soo waxee moom nga léegi da ngeen di daw coow waaye boo xamee ne candidat nga na ngay coow boo xamee ne candidat nga boo xamee ne dañuy déposer sa candidature est-ce que jar na coow saa waay combat bi neex na lool mais grade yi ma ci am ñu ko ci am ñu bëri bëriwul ko te duma dugg si détails yu bëri tey égrégore Amath Dansokho laay waxee ndax ci égrégore révolutionnaire boobu ci égrégore bu dëgër boobu ñoom ñoo dugal investir tour Ousmane Sonko neew naa leen ba fu muy mujjee Sonko bu ne Bassirou mooy doon candidat c'est être contraire à l'idéologie de Pastef bi ñu waxoon mooy le du sang je suis pragmatique si lu may def bu candidature am kee dugg il le mérite et ça doit passer ndax dugg na ba pare problème bi mooy est-ce que léegi nag candidature bi dugg na te am na lu xew démb si guddi 24 décembre réveillon waaye fi mu ngi tëb mu ngi coupé am na lu xew réveillon 24 décembre pour war na ni Sonko dafa terroriser hypnotiser Macky terroriser hypnotiser ko démb ñoom mu jaral leen toog tenir réunion au lieu de dem réveillon ak seen famille au lieu d'aller réveillonner avec leur famille non dañ dem toog ak Macky Sall fas yéene xeex waxtaan ak ay kilifa réew mi maanaam chef renseignement yi ñëw toog exposé leen ne leen dëkk bi fii la yem dëkk bi fii la jëm loolu démb la am démb si guddi la am général Sène aide de camp Macky Sall yi ak waa conseil constitutionnel ak amoon na beneen pas greffe bu ci bokk li ñu reeree dem xam naa kër ga la jóge ñoom ñu def seen benn réveillon réunion réveillonné maanaam ñoom ba démb si guddi lañ doo ko xam ne Ousmane Sonko tuuram mu ngi biir conseil constitutionnel kayit yi yàgg si na ñu jëlal Macky sàll kayit yooyee yóbbul ko ko waxtaan nañ nag ñoom ñëpp seen biir te këyit gi dugg na ba noppi te man ba tey balaa ma koo gëm man affaire bi ba tey daf ma dépassé parce que mënuma comprendre ne gars yi dem nañu ba déposé Ousmane Sonko te gendarme yi nekk si bunt bi mënuñoo interdire loolu kon léegi candidature Ousmane Sonko mu ngi fi Macky Sall tenir na réunion démb mais ci réunion bi lan moo judd ci réunion bi ak ñoom fi ñu jëmee réew loolu justice dong moo ci mën dara bu gouvernement reyee ba waxtu bii justice kese kese moo ne a stabiliser réew mi moment bi te président conseil constitutionnel muy Père Badio Camara sa sœur mu ngi Ziguinchor doomam yi ay magum jëngu lañ ay kilifa lañ ñu ngi dugganteeg ñëpp xeebuñu kenn ay guerrier lañ ay saaba lañ réew am na fu muy toll ay xale duñ jël ay décision bëgg ko defar yenn mag ni ñu bëgg leen tegal leen dengeen ba noppi loo leen def baax na déedéet waa léegi ay yàlla e yàlla keroog moom laa la wax ci birab bi naas maliki naa ilaahi naas e eh, yàlla yéen waa conseil constitutionnel e yàlla wala da ngeen foog li ngeen war a jël décision wala li leen Macky Sall bëgg def loolu nii képp koo xam ne anti système nga comme France bëgg ko warul jàll foog ngeen am motif boo ko collé waaye léegi bu ay député jëlee Kédougou ne ko yow Kédougou kaay léegi Kédougou mooy remplacer Casamance léegi Kédougou kaay nekk président nag au lieu de Casamance nekk président waaye léegi loolu ñun luñ ci mën. Kédougou de deful lu fi dem defee te lii xewoon na fi de du lu fi bees. Macky Sall laaj leen ko moom ndax APR récépissé bi ndax moom bokk na ci membre fondateur APR négatif. xam nga waa APR ñu ngi fipp mu gis ni bari naan APR dafa tas APR tasul de Macky Sall bokk fa. ay ñoom Alioune Badara Cissé la ay ñoom Mimi Touré la ay ñoom Youssou Touré la ay ñoom Mbaye Ndiaye la ay Macky Sall ak Moustapha Cissé Lo dañoo jox APR mais bokkuñu fa dañoo jox xam naa baax lu ma wax waxantuma dañoo jox Youssou Touré moo leen fa gën a ubbi mais ñoom dañ faa jox balaa Macky Sall di ñëw Youssou Touré commencé woon nañ les enseignants ñoom Mimi Touré dañu bind seen projet Macky Sall ñëw Ablaye Wade toroxal ko ñu solal ko projet bi comme waa Pastef ni ñu bindee projet bi Ousmane Sonko ñëw ñu solal ko projet bi mais bu doon Macky ak Macky rek du mos a nekk candidat présidentiel mënut a nekk. il était connu par kii lan la amoon lu mu mënoon jàpp ab journaliste gambien di ko kat si corniche bi bañ jàpp ko loolu la mënoon loolooy président de la république. est-ce que ku war a nekk président yéen na maanaam nga toog sa oto biir campagne gars yaa ngi xeex Fodé Ndiaye dee Modou Diop dee ñëpp dee ngay katt journaliste sa oto ba ñu jàpp la te yow yaa war a jiite Sénégal. renseignement xam nga ne yéen tey ak li Macky Sall xewal nii bu doon tey doo leen ko baal gars yi moo tax gis nga des fois Sénégal xam nga lan moo ñu sonal sutura non nañu bàyyi mu sedd. non bu ko nit ñi yëgee ay mbokkam non ay liiwam non njaboot gi waa léegi moom mii ko def ana mu léegi façon bu salte bi muy jiite Sénégal parce que amin bu salte la ko amee bi ñi tuur seen deret moom mu ngi maraatu conseil constitutionnel nag le 26 suba mooy dernier délai bi de te ma kii wax na de yenn candidature yi ba kenn la ci teg mais du jàll ba kanam la ci teg mais ça ne va koy jaral taal réew mi juge yi na leen jaral jël seen responsabilité téye ko mën na nekk li juge di commandé ci brigade de gendarmerie Macky Sall commandé ko ci brigade de gendarmerie malgré moom mooy chef suprême malgré mooy joxe ordre yi dama xam lu may wax xam tuuti am na fi muy toll. juge nga jëli leen Macky Sall moo gën yomb Macky Sall ne juge bi wàccal réew day toll foofu réew dafay toll si réew dafay toll ay Colombie ñëpp dund nañ ko réew day toll foofu moo tax ma leen di wax sénégalais sénégalais candidature Sonko jàll na kenn mënu ko tere nekk candidat buñ ko ko teree nag nu ko waaye bëggee la koy defee bu Sonko nekkul candidat moment bi nu ko waaye bu conseil constitutionnel xool dossier am buñ ko ubbiwul wala dossier wu parti wu Guirassy buñ ko ubbiwul c'est parce que dañuy def lu leen neex te loolu ça ne peut pas aller et va pas aller kooku mënul nekk soyons d'accord là-dessus dès maintenant dossier bi ñu déposé Ousmane Sonko si le conseil constitutionnel ne l'ouvre pas c'est parce que c'est pas normal Macky Sall mooy jël décision te moment bi décision yi ça ne plus à Macky Sall ñoom conseil constitutionnel set lañu ñoom set yëpp ñoo war toog décision te si set yëpp lu ma leer sama diggante ak sama borom am na ci ñoo xam ils vont dire non kenn ki moom message am bi mu ko jotee déjà ça fait deux jours mais comme yenn message yi kenn du ko publier. yooyu man audio du tas xëy na yéen ngeen tax mais pas man li ma wóor ba wóor dossier Ousmane Sonko dugg na bu ñu demee ba cappaandaw Sonko sera candidat ko kenn mun si dara à moins que Macky Sall jaay leen doole mën na nekk tam bu ko neexee jaay waa constitu conseil constitutionnel doole ndax yàgg na ko def justice te ça a ndax lan le peuple est un peu regardant bii paa peuple bi ñun ñoo ci des yokk ay combattant comme ni mu ko waxee woon blessé de guerre yi kenn du leen sànni kenn du sànni blessé de guerre ça ne se fait ñit doon wax démb lu mu xëy na Sonko laa faral ma gis ñenn di ko clash tàmm wax ci yooyu mais foog ñu bañ di sànni naa fu may nit mën na ñàkk xam ba moment bii nii soxlaatuñu te union bi soxlaatuñ ko unition lañ soxla lu ñu gën a am ci communication bu leen ko xeeb bu leen foog ne ñun rek on va gagner l'affaire déedéet lu ñuy gën a dem di gën a soxla bloc li ñuy gën a yegg moment yi di gën a soxla bloc li ñuy a yegg di gën a soxla bloc bi lan rek moo ko mën a instruire moment bi détermination. détermination bu takkarnaase moo ko mën a instruire bu te bokkuma ak yéen vision bokkuma ak yéen entente Binta Diallo maa ngi gis ñu yónnee ma benn vidéo am ku may kaas Binta Diallo xaw ma bu mu ne yónnee leen ma bracelet ñenn ñi naan ko soxlaatuñu te kat ki ko doon wax jullit la maa ngi gis point point jullit bi Omar bul Xatab bu jamono doon tey tey lu ñuy wax ci Omar bul Xatab safara lay dem ndax dagoon dagg bopp nit dem yoonam ñaata criminel la yonent bi man bàyyi mu sedd récupérer leen ñun ñu ne on doit pas récupérer quelqu'un parce que ñun kese doy nañ gars yi revenons à la raison revenons à la raison affaire bi affaire u réew la du affaire parti président jiitewul parti askan lay jiite adduna lay jiite l'islam du ñëpp baaxoon de mais ngeen yàlla ngeen gëm moo tax dem leen gis ngeen ni def yenn publicité yi ma ne ak akbar xoolama yàlla ji ñu may woo moo tax man sama yàllay maam ji moo xaw a tane yàlla gi nekk seen affaire yu diine yi sama yàllay maam jéem a gën ndax sama yàlla maam soxorul non sama yàlla maam soxoru sama yàlla maam du rejeté sama yàlla maam du rejeté kenn jamais de la vie xam naa bu baax lu may wax waxantuma même tey Françoise Hélène Guèye ñoom ñi démarré tey projet bi bu ñëwoon tey ba ne damay bokkaat même boo leen publié wul ay affaire am xoola buy duggaat ci raay na ko rek nañ ko bëmmax nañu bëmmax nañu bëmmax épaulé ko ba mu taxaw ndax lan Casamance militaire yi laaj leen boo boo jëlee bal kenn du la bàyyi si àll bi metti metti da ngay jël say gaag génnaat Pastef Ousmane Sonko la ñuy wax Pastef bu la neexee na ñoom parti politique la bu la neexee ñoom ñu def bloc di compter par personne un deux trois quatre cinq six sept mais Ousmane Sonko tollootul fu muy compter ay bopp. tollootul fu ñu naan kii mooy président cellule tollootul fu ni naan nii non non non Ousmane Sonko a dépassé parce que ñi koy voté ñëpp on a rien besoin ci ñi koy wër pour am fa ay affaire rien du tout bi ñu soxla mooy ñëpp def bloc jàkkaarloo gars yi gars yi Badio Camara mën na déconner mais Pape Cheikh Tidiane Coulibaly bu Sokone diine ju ma leen xamee seen kër Abdou Latif Coulibaly mi ànd ak Macky Sall laa leen wax waxte xam nga c'est pas parce que da nga ànd ak Macky Sall bon loolu affaire gouvernement la moo xam mais ci diineem laay wax man lu may seede ndax jàngale naa Sokone un an xam naa bu baax lu may wax jumaa dem boobu falaa laa dëkkoon nit da wax lu lu mu métti métti nekk ci dëgg waxal dëgg kii bu dee moom juge bi jàmm la mais Abdou Latif man bi ma xam même buy dóor ci ay livre loolu affaire état la mais ci jaamu yàllam digganteem ak boromam kooku dama ko koy seedeel bu ñëwee soogoon doo xëy jàkk dafa jar fekkoo ko fa mënul nekk saa bu may sport yi danañ daje muy génn ji jumaa ji mënut a nekk boo toogee di waxtaan bu waxtu jotee da koy dem da koy jóg dem dóor ñoom loolooy seen ngeer boobu man soogoon kër ñoom Abdou Latif Coulibaly loolu laa fa xam paa bi moom ak Macky Sall ñoo wax li mu wax Macky Sall wax loolu ñoom kese la concerne mais bu ñu demee ba seen biir entre juges ñoom ils vont régler ce qu'ils vont régler def naa fi live temps le passé naan leen la justice va lire le droit booy yu bëri naan ma grand dafa mel ne temps yi da ngay liggéeyal Macky waaye yéen bu ñu ne justice day wax dëgg ñu ne da ngay liggéeyal Macky aywa saba si ñëw wax dëgg coon wax dëgg léegi dama liggéeyal Macky boo commencé na dootuma saaga waa justice dootuma def lii rek ñu ne la da ngay liggéeyal ma ki waa léegi est-ce que justice wax nañu loi wala waxuñu loi léegi kon justice kon li ñuy def ni ñoom tam liggéeyal Macky la déedéet justice dañu bëgg a stabiliser réew mi dalal seen xel justice nee na ngeen jëli seen carte d'identité justice nee na Macky Sall rey na ba noppi li mu rey doy na ñoom léegi dañuy jël seen responsabilité teg réew mi si yoon sinon ñoom justice ñoom dinañu jël seen responsabilité après waaw lu golo xam bootee doomam mais Sénégal nag dëkk boo xam lu golo xam bootee doomam ndax la justice est responsable kooku kenn dama ko tere wax gars yi am na fi juge xam mamaay bu ñu fëggoon léegi coow lu jeex gën ma xam Sénégal metti na de Macky Sall publié naa benn photo ne leen sàcc essence rek la doon def 1991 92 Abdoulaye Wade ministre d'État la woon boobu heure fekk na ma may yéeg si ministère yi di wàcc di jënd ji seen añ ay ñoom Aminata Tall Aïssata Tall Ousmane Ngom Macky Sall daan jóge fag ñëw xiif xiif yi metti ay ñoom Grand Clédor fi mu ñëw di ma fekk maa ko xam waaye dama teel a dugg ci affaire état yi yaroo ci këru anti système général parce que da ngay am équilibre à avec le système à droite anti système Sonko fu mu jànge suñuy école ban code la jànge système ban déontologie la def système day teg système teg système ndax système mooy diriger. mais système ban buy arrangé sa réew mais mënoo teggi si jat ne duma teg dara kon tu seras dans le vide livre solution c'est un nouveau système livre gaz pétrole c'est un nouveau genre de système le Mali c'est un nouveau système qu'ils ont imposé Burkina nouveau système Niger nouveau système on veut que ça rien d'autre l'ancien système a déjà fait 60 ans kon doy na nañ jàll ci leneen peuple éveillez-vous de candidature bi sërëx na jàll na ba yegg ci biir ba ñu liir ko ba Macky Sall jot na ci xëy nañu woo ki ko fa dugal xëy na gars nañ ko woo wax ak moom mooy sama grand bi xam nga rek bëgguma def égrégore kenn ndax moo it politicien la moom it politicien la xam nga rek man li ma leen wax ci Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko mënuma ci dara mais foog ma wax parce que Guirassy moo dugal candidature bi gars yi dinañ ko wax ak moom. yàlla buñ dem ba ci biir affaire yi changé parce que man je suis trop man daal xaw ma loolu la ba fin temps conseil constitutionnel day fëgg ne dañuy dem élection boobu ma mën a gëm ne dinañ dem élection mais nii nii nii non non parce que démb ñoom réveillé nañ. Marème Faye Sall jox na leen ñu lekk ba suur naan noon na leen ay jus donc lu gars yi am dignité dignité dignité dignité samay maam ñoo ma gënal suñuy maam te Marème Faye a ñoo ma gënal seeni maam te Marème Faye a très tôt démb gars yi fa la ñu reeree kon conseil constitutionnel mën na dem ba le douze ñoom set ñëpp d'accord même bu dul xaalis kon man biñ fa reeree démb dama xaddi ñenn ñi ma wóoroon ne sama diggante ak sama borom ne bu fa dossier Ousmane Sonko duggee jàll bi ñu réveillonné démb ak Macky Sall laa xam ne c'est fini waaw waru leen woon fa lekk de lekkee kër Marième Faye Sall waru leen ko woon def erreur monumentale ngeen commettre yeneen candidats yi l'opposition yéen ñëpp tam soyez sur le terrain faut un peu que vous fassiez bouger bouger les choses parce que Mama Sonko est candidat yéen itam na ñëpp wàcc ci terrain bi na ñëpp wàcc ci terrain bi nekk dans les marges de manœuvre moo gën toog di xaar ay procès gauche droite proche procès procès procès procès procès yu dul jeex procès yi c'est mort da ngeen di nekk candidat wàcc leen préparé dem leen si préfecture yi jëli ji seen bagage yi fête bi fii la yem de yéen la jeunesse yaa ngeen mois de décembre 60 pour cent de la jeunesse yéen ñëpp septembre novembre bu serez des responsables da leen di fekk ngeen am nday doom ndax da ngeen di katt nday seen gel yi biiral leen nii ci décembre kon août la ñuy kii bu Sonko jàllee dëwoon bii heure dina leen fekk ngeen di liggéey ndax di ngeen dem béy ji am loo leen yaakaar boo leen xoolee bu Sonko jàllul dëwoon bii heure loo leen dundalee seen bébé yooyu doo leen ko am kot ñu di fet bu dangereux dangereuse waxi mag nag laa leen di wax waxuma leen waxi xale yéen jeunesse bi yéen nay xeex xeex bi jeunesse bi yéen nay xeex xeex bi yéen nay xeex xeex bi si lan seeni carte d'identité si lan présent ni Sonko déposé na carte d'identité Sonko déposé na candidature am kenn amul droit retiré ko moment bi c'est pression bi noo leen koy tegee soyez présent dans les plateaux, dans la rue, dans les réseaux sociaux. Soyez présents partout avec l'image, les effigies de Ousmane Sonko. Point final, ça passe ou ça casse. ku bañ ñu rey ndeyam c'est simple sans gagne sans perte leen toll fu mu toll nii ku am lu ngay ñàkk ñoom Amadou Ba ak Macky lay ñàkk pas ñun on a rien à gagner que le pouvoir diriger changer réew mi point final Macky Sall moo war yàq réew mi déedéet gardante yi bu dëgëree bu dëgër présence physique bu tiiree ay bal tiirewaat ñeneen yi dinañ jël seen responsabilité mais buñ ko toppee ci jikko alpolaaram bi bëgg a taal dëkk bi du dem du dem foog ñu calmer town bi dem élection par force bëgg dem bañ dem bëgg dem bañ dem ba suma ba suma bari